gisee ginnaaw euh, mbirum euh, njàng da ngay seet rek nekk ne am na loo xam ne lii doomu aadama yàlla moo koy def ci moom ñun ñëpp ñu am ay lu ñu def ci ñun loo xam ne lii ñu joxee jumtukaay yi ñu ko mën a jëfandikoo suñu xel danañ ko mën a jëfandikoo loolu nag tey soo gisee xale yi nga xam ne ñoom dañoo sëgg ñu jox leen ay liggéey bu ñuy def ci xayma maanaam ci calcul jox leen liggéey bu ñuy def ci dictée maanaam loo xam ne li gisuñu ko muy ci kàllaama français muy ci kàllaama arab ñu wax leen ko ñoom ñu bind ko ci ni ñuy bindee loolu dafay wane ne xale yu mel nii bari nañu Sénégal ni ñu leen war a jëlee en charge ci suñu système éducatif jëlee leen ko te loolu dafay yokk ñun suñu pas-pas ci lépp lu ñu mën a def pour doomu Sénégal yi nga xam ne ci euh, dañoo sëgg walla am yeneen euh, gàllankoor suñu responsabilité la pour état Sénégal jël leen en charge ci système éducatif bi pour que li ñu am ci xam-xam ñu génne ko parce que tey jii gis nañ fi ay xale yoo xam ne yii muy dicté bi ñu leen jox ci français muy jox leen ko ci kàllaama arab euh, defuñu ci benn faute calcul bi ñu leen jox muy benn problème trouver nañ ko loolu nag day wane ne suñ leen euh, joxee jumtukaay yu ñu mën a jàngee danañu mën a jàng ëllëg jariñ seen réew ci niñ ko mën a jariñee